waaw waaw c'est amul benn problème ba ba ba tey <laughs> du yàgg de toute façon man dama ko yàgg damay nuyoo baalu àq rek ah xaaral ma ñëw le président de la chambre de commerce ñoo àndoon ñëw donc si yàq daal. am dim adjoint gouverneur euh, Thiès chargé des affaires administratives donc euh, ñi ngi ñëwoon tey si julli bi kër fii si juma maam El di ñaan yàlla korité bi ñu fekk ak at yu bëri d' abord di baalu ak di baalu ak ñëpp euh, suñu teewaay si jàkk yi nag euh, loolu ndigalu suñu autorité yi la à l' occurrence de président de la république région bu nekk département bu nekk arrondissement bu nekk autorité yi fa nekk dañuy dem di di assister imam yeeg ulema yi si ànd ak ñoom di julli Euh, julli iit yi muy koor muy tabaski euh, tey ñëw nañ def ko te li moo gën a neex si julli bi mooy message bi imam bi lancé mooy muy la paix au Sénégal jàmm ji ñuy sàkku daal yàlla nañ ko am ñun ñëpp parce que wax na aussi tamit liberté de presse baax na wante tamit nit ñi war ñu wax rek lu leen neex di ko wax si autorité yi di ko wax si sëriñ yi euh, wax na aussi si jaxasoo bi tarixa yi war a jaxasoo Euh, comme ça réew mi nekk si jàmm ndax tamit coow li bëri na trop seetlu nañ ko temps yi waaye loolu yëpp tamit ñi nga xam ne peut-être seen xel dafa am fu mu toll rek ñoo koy def li am solo daal mooy nit ñi delloo seen xel ñu jaamu yàlla suñu génnee si koor gi comme ni nga ko waxee nan daan jaamoo yàlla nu continuer di ko jaamoo yàlla ba pare di ñaan jàmm am si réew bi yàlla may ñu nawet bu bëree bëree bëri bëri encore une ñu ngi baalu àq ñëpp ñëpp di leen bala àq ñu ànd ak président chambre de commerce monsieur di di di di rafetlu teewaayam asalaamaaleykum wa rahmatulah. voilà jërëjëf. c'est bon, autorité à parler. <laughs>